gi jëmmal lépp lu jëm ci wàllu cosaan ak aada ci Kayor avec des association pour le développement culturel du Kayor di kuréel goo xam ne dafa yëngu ci lépp loo xam ne jëm na ci aada ak cosaan gën a firndeel seenu nekkin. donc ñu doon def euh, première euh, science yi te moom mooy euh, lancé ko parce que mun naa ko woowee doom ju juddu te doom bu juddee war na am tur war nañ ko ngénte donc ma àndoon ak samay bokk ak ñi nga xam ne ñoom laa seqal association bi yëpp ñu daje woon fii tey doon waxtaan. Euh, ak suñu ay objectif ak lan la ñu namm ak lan moo tax ñu créer euh, ADEC. ginnaaw ba ñu jotee kayit bi koy findeel ñu taxaw temm ngir taxawu cosaan Aliou di artiste bi ñu ràññee lool jiite kuréel gi di xam ne ne mbir mi dinañ ko gën a yaatal ngir ku ci nekk man cee gis sa bopp. parce que Sénégal noo wax culture te duggu ci village yi nga xam ne ñooy village environnant yi parce que li composé réew mi loolu culture la pour cent kon na culture boobu du fi jóg soo bëggee defal ñëpp da ngay ba xam li fépp. Euh, sud historique yaa ngi fi sunu mag ñu baax ñi fii la ñu jëmbatoon ay daara Seydi Hadji Malick def na fi ba taay lu jar wax euh, Cheikhul Khadim def na fi ba taay lu jar wax euh, ak li nga xam ne moom mooy léeruwaayam te ma waxoon ko léegi nga xam ni kenn mënut a tudd Sénégal te tuddoo leen. kuréel gi nag sàkku nañu ci jiite bokk moomeelu Pekes gi mu taxaw leen. Moustapha bi xam ne mooy secteur culturel indi nañ fi ay sunuy doléance bi ñu ko exposé mu wax ñu lu dal xel dama jiite administration te nguur laa ko séqal wala état laa ko séqal wala euh, Sénégal laa ko séqal li ma yor alalu askan bi la te bëgg naa lu ma ciy def mu leer loolu defe naa ne dañ ko koy nangul kon da ngeen ut récépissé ba am ko su ngeen ko amee euh, lépp lu ñuy joxe ci ay situation ñu mën leen koo jàppale tamit def ko parce que loolu min ko ilayka la bu ñu leen ko defalee suñu bopp la jógee suñu bopp lay delluwaat ñu looloo tax ñu xar suñu tànk tubay dem uti ko bin ko amee nag ñu ne nañ ko ba ñu xam ni am na Euh, waaye nag dellu siwaat di ko talalaat loxoom bu dugal ci loxoom jàppale ñu. Moustapha la dikkat ci mébét bi ñu am ngir jariñ seen réew jaarale ko ci aada ak cosaan.